jëlee gaañu-gaañu waa ji doon dawal minibus tata bi di Abdoulaye Diop mi ngi nettali ci l'Observateur na mbiree demee dem na bay xam le ne yëf yi dafa meloon ne film ci moom Soleil national nañu ab minibus tata la ay samba boy songu démb ca Yarax magasin sànni koy cocktail molotov bis ba tàkk ñaari nit faatu ca lu mat juróomi nit jëlee cee gaañu-gaañu ministre intérieur di Antoine Félix Diome ma demoon démb ca fa yëf ya xewe mi ngi wax ci Soleil national ne li am amul neneen ba gis leen lu xarti leen def ci li quotidien bi ne ci xëtamu njëkk terrorisme ca yaraax anki dina kay tuddee ko fitna ju jéggi dayo léegi ko nañu ab attentat terroriste moo am ci xolu ndakaaru ñaari nit ya ca faatu la mi ngi ñuy fàttali ne ñaar ñëpp ay jigéen lañu mi ngi ñuy wax it ne loraange yi rek ci ñi ci faatu ndax am na yeneen juróomi nit yu ca jële ay gaañu gaañu juróom-ñaar yu wëyu yi soloon seeni kagul songoon minu bi sata bi ak seeni cocktail molotov ba ñu ca pare yéene kay bi nee nañu dañoo agressé ñëwoon ca tata ba nangu seeni téléphone portable ak seeni sac li xew démb ca yarax vox populi nee nañu romb na jëfi baar xibaar Le Quotidien ne ko moom kay xàmmee siwu ko ak bomb bu kalaate watab tata bi ñu taal dimbu ca yaraax Le Quotidien mi ngi ñuy fàttali ne mooy ligne bi doon daw diggante Kounoune ak Colobane Walf Quotidien gis ne lii bu yeggee ca ñag ba du baax li ñu gis démb ca yaraax musiba mbaaba kumbala ci réew mi waa parti réew mi ak bureau politique bu pax ci Pastef Vox Populi nee nañu bi ñu yëgee li xew ku ci nekk ci ñoom def na communiqué di ko ñaawlu ñenn yéenekaay bi nee nañu prisonnier yam fa fekk ñoom ñëpp ginnaaw bi état bi defee décret tas parti Pastef léegi nag mi ngi wër di tëj permanence yi parti bi ubbi woon ci réew mi libération nañu ginnaaw bi ñu mandat dépôt Ousmane Sonko arrestation yi ci biir parti Pastef mu ngay gën takkarnaase nemmeeku nañu it ay manifestation ci réew mi maire bu Parcelles Assainies di Jamil Sané libération nee na ma nga ñu garde à vue ndax tuumay appel à l'insurrection maire bu Patte d'Oie di Maïmouna Dièye ñu convoqué ko tey jii ca division investigation criminelle kii di Pape Alé Niang libération mi ngi ñuy wax ne mandat dépôt nañu ko démb docteur Toussaint Manga am retour de parquet moom ak Ben Taleb Sow ak Adi Sène soursoa ñu Jamil Sané maire bu Parcelles Assainies Ousmane Diop Pastef Mbour Maïmouna Dièye maire bu Patte ak Fatima Zahra Wagué bu Pastef Tamba ñoo ngi ci yoon ngir fekki seen leader Ousmane Sonko ca kaso ba journal Témoin ñun mi ñu yóbbu Ousmane Ousmane Sonko kaso raafale gi ñuy raafale ñoñom yi di pacifier mi ngi gën di yaatu waa Pastef it bàyyiwuñu mu sedd ndax résistance gi ñu doon wax ñongo ca ci xët mu njëkku La ñu jàngee ci ne ñi ñàkk seen bakkan ci manifestation yi am ci réew mi gannaaw ba ñu mandat dépôt yu Ousmane Sonko ñoo ngi toll léegi ci ñeenti doomi aadama ñeenti nit ñoo ci faatu ki ci mujj yéenekaay bi nee nañu benn xale bu góor la bu dëkkoon ca quartier Néma nee nañu balu fetal lañu ko dóor Sénégal njiitam di Macky Sall ak Gambie njiitam di Adama Barrow ñoom ñaari président yi ñoo ngi joxante loxo ci xët mu njëkku Soleil national yéenekaay bi duñu xamal ne démb la woon ca Banjul ci ndaje mii di troisième conseil présidentiel sénégalo-gambie xew-xew beneen bu xew démb ca Banjul source waa ne nañu mooy école Sénégal ba ñu fa doon inauguré école sénégalaise Tobacco Road la tudd réewum Sénégal moo ko tabax ca Gambie ak xaalis bu toll ci juróomi téeméeri millions ak ñeent fukk 540 millions président Macky Sall mi ko doon inauguré journal bi nee nañu leeral na démb ca ndajame histoire école bi ak li waral ba état bu Sénégal taxaw ci tabax ko ba mu sotti école sénégalaise Tobacco Road boobee ñu inauguré li mu ci gis moo di investissement bu toll ci cinq ngir éducation bu Afrique ndax ci neuf cent trente a dana ci am lu toll ci fukki nationalité ak juróom-ñaar yu bokkul journal Le Mandat bokk moom ci ñuy xëyee xibaar bi ci seen xëtu njëkk li mu ci bind mooy président de la république Macky Sall na ab ministre éducation di Cheikh Omar Anne démb ca Banjul ba ñuy inauguré école ba fa Sénégal tabax Barça wala Barsaq di mbëkk mi libération nee a